mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ne ñuy nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khader ne mu ñëw fi tey ne bàyyi ko nag ci xalifa ba Cheikh Mouhamadou Mountakha nee ñëw fii tey fii fi Médina ngir bis bi nga xam ne mooy soxna su baax sii fi bàyyi ko di ki nga xam ne ñun yi ñëpp noo ko bokk ak yéen ne tiis wi fi ba nekk noo ko bokk ak yéen ne ni nu bokkeek yëpp yéen ñëpp ci wàllug lislaam muy lu neex mu nekk lu naqari ne lépp day yéen ak ñoom yéen a ko bokk ndax jullit moom ak mbokkum jullitam wenn yaram la rek lu jàllaar rek sëriñ bi nee day laal ca yaram wa lépp nee yaram wa yëpp da koy yëg nee kon nee loolu yi day mel ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom moom yi ci boppam moo fi bëggoon a ñëwal boppam nee ni diggante bi demee ak kër yi nii nu demee nee loolu yi moo nekkoon bëgg-bëgg Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye nee na xat-xati jamono ji ne loolu moo waral mu yebal Cheikh Mouhamadoul Bachir mii nga xam ne mooy làmmiñu sëriñ bi mooy tànki sëriñ bi mu dikk teewal ko fi ànd ak mbooloo mii mu àndal muy délégation bii mu àndal sëriñ bi ne danañ tudd turi incha allah ne xam nañ ne diggante Medina Baye ak Touba ñi xam histoire xam diggante kilifa yi ne xam nañ ne diggante boobu diggante bu rafeta ndax ndax sëriñ bu tedd bii nga xam ne moo nekkoon fii di sunu maam Baye Niass di kilifa koo xam ne borom xam-xam la boo xam ne adduna bépp xam nañu ko kenn umpalewu ko taxawaayam ci diine ji xalaatam ci diine ji ay mbindam ci diine ji fu ne ñépp xam nañu liggéeyam waaye it xam nañ it ni mu daan taxawee ci diggante kër diine yi sëriñ bi ne at yi nga xam ne moo weesu toll ci ñeen fukki at juróom fukki at ñun ñi dëkkoon tuuba xam nañu digganteem ak Cheikh Mamadou Fadal ne ñoom ñaar ñooñi ku ne miin na seen taxawaay ñoom ñaar waaye it digganteem ak Cheikh Mamadou Bachir moom mi nga xam ne moom la bokkaloon dëkk fii fi Kaolack sëriñ bi ne seen diggante ñoom ñaar ñooñu nekk boroom xam-xam yu mag ne dañ daan weccantee lu bari nee na seen diggante ñoom ñaar ñooñu ñëpp xam nañu ko ne demoon nan ba àgg fii ci kër Cheikh Mamadou Bassir gii jumaa it yéex na am ngir Cheikh Mamadou Bassir daa wax ne. jumaa ji nekk foofee. fa mbiri na. nanuy bàyyi ko fii di dem foofee fa mbiri na di ko fa jullee. nee loolu yi moo nekkoon taxawaayu Cheikh Mamadou Bachir te loolu it moo war a doon it taxawaayu lislaam ak nitug lislaam ndax nee ñëpp benn lanu ne ñoom ñëpp ci biir toolu lislaam bi rek lan nekkoon. ku ne da nga ca saw sas. woo war a bay. waaye ñoom ñëpp noo bokk tool ne kenn ku ci ne. yaa ngi bañ tool bi booy rek. ne bëgg rek tool bi sotti te rafet. ne moo nekkoon seenub jublu. moo doonoon it seenub taxawaay. ne loolu it mooy taxawaayu Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi loolee ay waajuram ak i kilifaam daa taxawee ne loolu yi rek mooy ab taxawaayam moo tax bi mu déggee mbir mi daa bëggoon a ñëwal boppam rek waaye Cheikh Mouhamadoul Bachir mi fu mu toog mel na ne jëmmi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ma nga fa ndax bu ñëwaloon boppam it mooy doon ay kàddoom moo koy waxal it kon daanaka fu Cheikh Mamadou Bachir mi teew nga xam ne mooy sunu sëriñ si Ahmed Tidiane sëriñ bi nee ñëpp xam nañu ko ci xam-xam bi ci diina ji ci taxawaay bi ci diina ji ne danoo ànd dem Maroc waaye ñuy gisee waaye ci biir délégation rek la ñu ne waaye mu seetlu ko bu baax ci jaamu yàlla diirub li muy ànd ak sëriñ fu nu lu coow la bari bari moom ma nga ca diine ji ak kurusam rek ne loolu yi seetlu na ko bu baax ne kii nga xam ne daa nekkoon magam di maam imaam Assane moom day moom la gënoon a xam ndax ba muy ànd ak Cheikh Mamadou Mourtada di dem Amérique ne foofii la ko xamee woon mu faaru daj daj ak moom lu bari mu fay liggéey liggéey bu wóor ñépp xam ko kon sëriñ bi nee na mi ngi jaare soxna si bu baax te di leen xamal ne moog yéen yéen ko bokk ma ngay ñaan suñu borom mu dolli ko ay yërmandeem dolli ay leeram ca foofee mu ne ci darajay kilifa gii fi doyal lii ci darajay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa ne loolu mooy kaddu yi sëriñ moom lañ bëggoon a yàlla nañ koy yéex a faylante daraja yonente bi alayhi salaatu wa salaam salaamaaleykum wa kon eh, sëriñ bi eh, gannaaw ba suñu Moustapha man nag xam naa la délégation bi mu àndal si njabootu bopp. di sëriñ Abdou Lahad bërki démb lañ ma andi ci ak si ko sëriñ Cheikh lettre boo xam ne Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass moo ko bind ci biñ mujjee dem ci rabita alamil islami daje mu mujj def ak Cheikh Al Hadj Abdoul muy wax ne léegi dañoo profité ci ndaje boobee defaat seen ndajem bopp suñu ak ci Sénégal Cheikh al Islam wax ne nag cër biñ ma joxoon mag gi ay yitte yi tax na sama doom jii di Serigne muy li mu jiite woon ci conseil supérieur islamique mooy mhm. ne dénk naa proposé naa dénk ko sama doom jii di Serigne Cheikh di ñaan nga ñëpp ànd jàppale ko ca loolu daan nag ñoom ci seen bopp nag ñoom ñi ko dénk dañ ko dénk mu jiite waaye danañ laxasaa ànd ak moom jàppale ko lettre bi bëkki démb lañ ma ko indil ci archive Serigne Cheikh lañu ko jëlee ñi ngi ànd ak Serigne Babacar Mbacke ñëwoon na ko bi Serigne Moussa waaye ñi ngi ànd ak sëñ Modou Mbacke si mooy dëkk ak yéen fii ci waaye ñi ngi ànd itam ak sëriñ euh, Abdou Khadir Ndiaye ñi ngi ànd ak sëriñ Mbacke Diop ak man euh, Khadim Soudou yi moom naa ko lool ak ñeneen yu bare bari ñoo xam ne daal wax dëgg yàlla ci euh, njabootu Cheikh Mouhamadou Bachir muy waa këram di am coasam kenn desu ñu ñëw rek comme ni ko si Moustapha Diattara waxee mm-hmm. doon andi bëgg nañ sax mu gën fee yaatu mm-hmm. waaye ni jamono demee moo tax rek sëñ bi ne buñ ko nekk ñu waaw ànd kan waaw ñi ñi jógee Kaolack fan ak euh, sëñ sëñ Bara yi représentant xalifa général de mm-hmm. ak sëñ Baye Ndaw mu nga xam ne moo fi nekkal Wadar Koudous ak ak Gàmmu ak taalibe yi nekk fii yëpp daal ñi ngi ñëw euh, ànd bi andi seen ñaan ànd ak ma jox suñu bopp sëñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nee xam naa dafay mottali rek barkeelu ci waaye eh, sëñ Moustapha dafa wax na lépp ndax nee na yonent bi Cheikh Mouhamadul Mountakha lañ fi andi. kon nag faw rek ndegam mooy rek kàddoom faw mu yëkkati kàddoom bi ñu ko ko sant. nee na Cheikh si Tidiane Cissé al imam nee na Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi lay bu baax a baax. te di ànd ak yow magam ju baax bii nga xam ne moom la ñàkk dañ bokk ko ak yéen yéen nee na mi jël siyaar bi ak njaal mi di ko teg solo nga tegal ko ko mbooleem njabootu seex ak islaam te seex Ahmad Tijaan Ibrahima Ñas nekk ca bopp ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal tey euh, bi yépp sëriñ bi nee na mi ngi lay bu baax nag lii nga xam ne moo jaar diggante Madina bu Cheikh Islam ak Touba te Cheikh Moustapha junj ko léegi muy relation bu rafet boo xam ne coloré ak bokk moo ko lal di ko sàmmit ba mu agsi fii te lépp di lu rafet te borom barab bii di Cheikh Islam doonoon koo xam ne it taxawaayam ci sàmm loolu ñëpp xam nañu ndax nee na li nga xam ne liggéeyal na ko lislaam dugal ko dugal ko ci ñoo xam ne dugg nañ ci diine islaam loolu rek doy na ab liggéey doy na résultat te nee na ci àdduna sëpp la ko def kon loola jëf ji suñu borom nangu moo mën a demee noonu yéen ñi nga xam ne yéen a ko wuutu gannaawam sàmm na doon yi seen taxawaay dara mankiwute nee na nee na doxiin wam doon dox ak ci tànkeem jaaran ca ngeen jaar rek wàcc leen ko benn yoon naka noona itam loolee mu doon doxal ci kóllëre ak sàmm ko diggante kër yi yéen ñi mu wut yi yéen koy def seen kaptilaay kattan ndax nee na diggam ak Cheikh Mouhamadou Fadl muy Cheikh Islam El Hadj Ibrahima ak diggam ak Cheikh Mouhamadou Bachir ak diggam ak sëriñ Cheikh Amadou Bakk Gaynde Fatma ak mboolem njaboot Cheikh Xadim yëpp noonu lépp rafetal kon nag kon nag nee na ñoom ñi ngi fi bay lii leen war rek mooy sàmm ko ba ba muy gën di rafet ba faw kon nee na ñu ngi lay siyaare bu baax di ànd ak yow ci naqar yi ci turu sëriñ bi ñu xam ne mi ngi koy ànd ak yow di ko ànd ak njaboot bi yëpp ak taalib yi yëpp di ñaari tam insha allah waxtu bi demee ba yi wàññeeku rek dana ñëwal boppam insha allah ànd ko ak yéen siyaare leen ko insha allah ndax nee na diggante ñaari kër yi dafay lu yàgg lool dara rafet lool dara mos cee manqué kon nag loolu mais mi ngi ñaan suñu borom sàmmal na ko ba faw